li ñu wax ci stade bi ngay benaz euh, ngay président des jeunes amateur yéen amateur yi nan ngeen dundee stade bi saa sune rek courant bi di coupé waaw jili vraiment ñu suñu papa wax rek affaire pa la fa laa jaar hmm. gis nga jiile hmm. tey benn amateur ñu ñëw ci biir làmb hmm. yorul billet ne day dugg ci lamb benn bër ñu mewul signé contrat ñëw ci biir làmb ñu war la ñu war la suffire sa combat nga génn ñibbi. Hmm. règlement day dal sa kaw. kon promoteur. su fekkee dafa am loo xamante ni tey daf ko warloo. ak hmm. yi nga xamante ni ñooy la CNG. Hmm. ñoom ñu wàccoo ak règlement yi nga xam ne moom la CNG bi teg. comprendre nga li ñu war mooy ñu yemale promoteur yëpp mais li am démb ci stade loolu kenn mus ko gis. promoteur boo xam ne def na frais d'organisation organisé combat ñu dem ba 19h 19h30 gis ñu combat ñu xamante ni stade bu courant mais mbër yi bu leen neexoon sax ñu ne duñu bëri mm-hmm. parce que contrat kenn du ko signé ci lëndëm gis nañ ne gabaar sin dañ ko kaaw gabaar sin bu ko neexee mu xëy dem ne moom gisul bu boobaa bu boobaa lamb ji mën na am problème promoteur bi jël na vingt cinq mille francs cinquante mille francs joxe ko mm-hmm. pour lan ñu jënd essence mais loolu du yoon mm-hmm. wala bu ko joxee ñu taal lamp yi mais ñun bi ñu seetaanee lamb ji ba lamb ji jeex ci la gis ne taal nañ projecteurs yi mu mel ni benn sabotage boo xam ne dañ ko gis ci arène bi gis nañ combat soq ak franc ni ko Mor Diouf waxee léegi cent trente mille lañ jënd gasoil pour ñu mën a seetaan combat bi imaginez tey somme combat soq franc arène nationale mooy premier jour bu mu fees mais tey su fekkoon tey jii coupure boobu noonu continué na mais incident mën na am si stade bi bu boobaa ku fa gaañu yow yaay perte te lamb ji ku ci gaañu duñ la faj assurance du la faj kon nañu jëlaat joxaat amateurs yi cër te lii nii bu continuer di am ñun amateurs yi dinañu boycotté dootu ñëw ci lamb parce que dal nañu ci kanamu ministre bi lamb Assane Ndiaye ñëpp gis nañu ministre bi toog ñuy coupé courant yi mel ni sabotage mais loolu du defar group bi bu courant bi ne tak coupé rek mu déclancé hmm. parce que lii bis bu tombeek lamb ju am tension violence bu rëy na fi am hmm. booy dinañ damm siège yi mën na fi am hmm. te bu boobaa tamit day fekk c'est trop tard ñu jóg di jóg jotee ministre des sports ñoo ngi koy lancé message di ko xamal ne ko arène bi ay nit ñoo fii ñëw kon nag nañu respecté doomu aadama yi képp koo foo xamante ni gaañu nga fi assurance du la faj kon nañ jox nit ñi sécurité courant warul coupé loolu du yoon heure bu coow amee tey jii nii dañu war a dem xool fi mu problème bi nekk ñu réglé ko tey ministre bi la ñuy ñun moom la ñuy waxal parce que tey jii nii moom moom lañ teg moom moo géré sport bi koo xamante ne aussi mu ngi def ay jéego ci làmb ji ñun suñ bët mais nag daf ci am loo xam ne buñ ko gisee dañ ko koy alerté parce que tey jii nii ñaan ma ko yàlla bu nit amee problème ci stade bi moom mooy le responsable hmm. stade bi nañ ko wutal directeur mu géré làmb ji su mënta am directeur ñu jël CNG bi jox leen stade bi ñoom ñu nit ñu fi teg Mm-hmm. comprendre nga gis nañ ni yi nekk ci biir toilette yi dab booy damm nañ ko amateurs yi léegi amatuñu fu ñu jàppee bu ñuy julli mm-hmm. buntu yi tëjuwuñu yooyu yëpp tey jii gis nañ ko insécurité boo xam ne mu ngi am ci alentour stade bi amul courant mais loolu mooy lan ah. nañu respecté amateurs yi sinon lii bu naree kon ne ñun amateurs yi dañ boycotté dootu ñëw làmb mm.